du duñu du ñu jëriñ faaw ñu ñu ñu tënku ci ànd nekk benn faaw ñu tënk ci jàmmoo jàmmal ak jàmmoo mhm. dafa am solo parce que am na benn imam bu ko wax sànq euh, la malédiction du pétrole moom lay mhm. fàttali parce que am na réew yu am pétrole mais jàmm amu fa ñun nag Sénégal teel nañ ko comprendre ba teeloon ko gàttandu avec régime bi nga xam ne moom moo weesu et heureusement d'ailleurs hier président de la République xëy na kàddu yooyu taxul ñu fësal ko trop mais baax na ñu fësal ko parce que ci biir kàddoom nee na mi ngi rendre hommage ñi nga xam ne liggéey nañu pour ñu toll fi ñu toll tey jii ci pétrole parce que ba mu cay wax defa ne pétrole bi commencé na jot nañu sax premier échantillon bi e mu ngi rendre hommage ñi nga xam ne ñoo fi jiit woon te liggéey yoon dans ce sens et c'est important parce qu'il faut reconnaitre les efforts des uns et des autres pétrole ñu ne yàgg na feeñ ci Sénégal mhm. ci jamonoy sengoor Euh, amaana booboo moo taxoon sax ba ñu tegoon fi SAR société africaine de raffinage te Fabrice mu ngi ko doon fàttali fan yee Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne am nañu socie société de raffinerie mais booba pétrole peut-être gis nañ ko fa mais exploité wuñ ko. Mhm. wala sax euh, euh, exploité wuñ ko du tout. pourtant ñun anticiper woon nañu un peu sur l' avenir et avenir boobee nag tey jii ci lañ toll. Mhm. muy pétrole ak gaz. commencé nañu nag tànk ci pétrole bi ñuy ñaan rek mu jëriñ te mu jig Sénégal mu nekk jàmmu Sénégal dégg nañ tamit ca wet ga l'ancien premier ministre Amadou Ba mu ne il faut ñu ñu ñu wax sénégalais yi ñu comprendre ne pétrole bi c'est pas que commencer na tout de suite que dañuy gis njëriñ li tout de suite il faut ñu may exploitation bi ay at fii tuuti ci kanam pour ñu mën a xam exactement ban impact la am ci réalité parce que moom en tant que premier ministre bu ko waxee war nañ ko mën a gëm moom géré na budget géré na gouvernement bi sans pour autant mu sukkandiku ci recette yuy jógee ci pétrole mais pétrole boobee l' essentiel est que tey jii toll nañu ci nañu xam liñ ci bëgg ak liñ ci nar def et président de la heureusement waxoon na ko waxaat na ko naka démb il fera tout pour assurer la bonne gouvernance des ressources pétrolières et gazières et ça c' important parce que tant que mi ngi leer tant que mi ngi jaar ci yoon je pense que problème du am. mais faudrait-il également que yaa ngi koy fàttali sax ñu dégg waxu sunuy imam. parce que société Sénégal tey jii dem na ba ku ci nekku ne yaa ngi wax. avec les réseaux sociaux ñi ñemewuloo wax ñi ngi wax ñi nëbboon ci biir kër yi léegi mi ngi ci mbedd mi mooy réseaux sociaux yi li nekkoon ci diggante nit ak nit nekk na tey ji ay weeraate ay wuññi sutura jàmbur te lépp day mujjee ci mbedd mi yeneen yoo daawul woon dégg léegi mi ngi commencé fës mais il faut que ñun ñu am suñu éducation de telle sorte que réseaux sociaux yi bañ a nekk gàllankoor ak góom ci biir société bi. Mhm. commencé na nag mais mën nañ ko teel a dakkal e gis nga réseau sociaux yi imaam yu bëri également wax nañ ci naka démb maanaam daal ci gàttal man bu ma jàngatee xutba imaam yi ñaar mbir laa ci gis imaam wax nañu ci actualité. actualité bi moo di pétrole moo di réseau sociaux moo di yarum gone yi moo di euh, euh, jàmmoo gi moo di baalante gi moo di yéenante jàmm moo di dox jàmm moo di également def jàmm ak yeneen aspect yoo xam ne soxal na fii jamono tollu tey jii beneen euh, axe bi mu jëm ci wàllu diine mm-hmm. lan moo waral tabaski lu luñ ci war a jàngat nu ñu ko war a déggee lan la ñu mën a inspiré ñun ci suñu dund parce que tabaski boo xoolee fi mu jógee yàlla dafa nattu nitam. Mm-hmm. di xool ne ko bu fekkente ne bëgg nga ma won ne yow gëm nga ma. Mm-hmm. reyal sa doom moom it déggal ko lool. Mm-hmm. déggal ko lool comme yow yaa ma sàkk man aw ma beneen sañ-sañ lu dul li ma wax damay jëfe sa ndigal doom janu naroon a sacrifier moom tamit am dégg-dégg ne baay bu la dara métti. sunu borom moo la ko sant yaay muñal baay muñal def leen. mu accepter sooram donc loolee lépp mu nekk ay jàngat yoo xam ne war nañ ci mën a jële tabaski ba malaaka ma mm-hmm. intervenir malaaka ma mm-hmm. intervenir indi ko yum xar donc ay jàngat la yoo xam ne mën nañ cee jël mais boo jëlee wàllu diine ji ak wàllu jamono lépp dafay tënku ci diine ji te imaam yi foofu la ñu nekk di fàttali nit ñi di joxoñ yoon wi di wax nit ñi nu ñuy war a mën a def parce que loolu tam également mooy seen rôle euh, euh, euh, de leaders sociaux war a taxaw taxawaay goo xam ne boo waxee nit ñi xam fa nga waxee boo waxee également nit ñi war laa mën a dégg kon léegi pour man moom laa doon junj sànq comme déglu nañu xutba yi mais nañu ko commencé jëfe jëfe ko dégg xam delluwaat ci li diine ji santaane bu boobaa sunu nekkin ci biir société bi amoon na avis dina dina gën a yomb. dina gën a yomb lu am solo ñoo ko déggandoo Fabrice euh, Ngéma dégg waxi sunu sunu kilifa euh, diine yi dox ci lu andi jàmm yaakaar naa ne loolu njëriñu ñëpp la te loole dafa war a doore. Euh, ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ndax caq bi ci ñoom la nekk fa mu nekk nii donc boo wootee jàmm di am si ñoom la war a jiite. mais absolument mais de toutes les façons euh, yàlla moo ko def boo nekkee dirigeant yàlla moo la teg foofu. Mhm. donc waxu kilifa diine c' est d' abord destiné à toi. Mhm. maintenant c' est à toi c' est à toi de montrer le bon exemple xam nga loolu la aussi c' est important nekk njiit c' est pas forcément am baat am euh, jëm jëmm mën non il faut donner aussi le bon exemple bon exemple c'est-à-dire essayer d'orienter le débat mais de toutes les façons man wax naa ko ba pare les les guides religieux ñoom ils ont donné le là expliqué nañu et ça montre que même ces gens non ñoom ils sont informés ñoom am nañu information am nañu lu Ils savent de quoi il s'agit, quels sont les problèmes de la société. Maintenant, c'est à tout un chacun de voir euh, la direction à prendre wala nga xam li nga war a def par rapport à justement cette euh, orientation que les guides religieux ont ont ont mm-hmm. ont, ont, ont expliqué et des solutions par exemple parce que ñoom cette solution là pour essayer de calmer d'apaiser la concorde parce que lépp ci concorde la parce que yàlla benn la il n'y en a pas deux. donc moo tax moom ñoom ils ne peuvent qu'avoir un discours autour de Dieu. et lii am ci àdduna moom yàlla la. Mhm. c'est le plus important. voilà c'est vrai qu'il y a les c'est vrai qu'il y a les athées. mais quand même on va considérer que ñii ils ont parlé au nom de de Dieu et ils se sont mhm. référés au au au au au Coran pour expliquer ce qu'ils ont expliqué donc mhm. on ne peut que considérer que affaire bu baax la c'est tout. alors laata ñuy ñëw euh, ci ce qui s'est passé à euh, Médina Gounass ak sortie Bougane Gueye Dany bi euh, ñu gis ne son excellence Bassirou Diomaye Faye ci ay waxam démb da ngay sentir ne ñoom seen démarche mooy jiital dialogue. Mhm. waxtaan parce que nee na lépp lu nga xam ne dafa dañ ko war a indi ñi ay soppite dañu koy waxtaani suñu biir waxtaanee ko askan wi. ñu koy doog a appliquer je pense que démarche boobee lu am solo la. démarche la entre autres démarches démarche la parce que ñun Sénégal. waxtaan la ñu xam waxtaanu biir nekk waxtaanu pénc te loolu d'ailleurs moom moo lal société bi boo xoolee réew yu mag yi bàkkoo démocratie mais démocratie ay gëstu ak cosaan wane na ne feeñoon na Afrique depuis très longtemps amaana sax ñun ñoo leen inspiré grec yi ak ñeneen ñiy bàkkoo agora et entre autres mais amaana ci ñun lañ ko jëlee diggante royaume du Mali gi ak amaana Égypte ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc l'arbre à Palabre agora concept la boo xam ne dafay yàgg arbre à palabre boobu ci la grec yi sukkandiku. ba créé seen agora. agora mooy lan mooy la place. lébu yi naan penc. penc voilà penc ñun dañoo yàgg am ay penc. na dëkk boo xam ne da fay dem te gisoo penc. donc penc yooyu moo fi nekk ba léegi lépp moom lañ fa doon waxtaane borom kër yi nga xam ne denc nañu soxna ñoo fa daan toog di waxtaane dëkk ba di waxtaane jafe-jafe di waxtaane ba saafara lañ ci indi ba yenn àtte yi sax foofu lañ ko doon amal donc ça c'est important ñu toll ci. jamono joo xam ne il faut ñuy waxtaan sinon décision boo fi mën a jël tubaab bi da ne lépp loo mën a dogal ci man te man laajoo ma ànduma ci da nga ko def contre man et donc pour éviter ça nañu toog di waxtaan. waxtaan lu ne waxtaan boo ko defaa ñu naan da ngay diir. est que de <laughs> est-ce que yomboon na. bon foofu tamit la la mbir mi xawee compliqué tuuti mais am na yenn waxtaan yoo. xam ne dafa métti <laughs> naan laan deel waxtaan balaa ngay def <laughs> boo waxtaanee ne yaa ngi diir. c'est que c'est que am na eh, diil yooyu ngay wax mooy waxtaan woo xam ne gars yi dañ koy eh, sekk ci suuf du ñu bëgg nit ñi xam bés bu siwee nag ñu commencé la eh, di nga ci ci yenn yi mais loo xam ne woote nga ko comme bi mujjee am pour le secteur de de la justice à Diamniadio mm-hmm. yooyu mën nañoo jàpp ne ay waxtaan la ngir wut loo xam ne ñëpp ciy déggoo comme ça application ba yomb mm-hmm. mais boo toogee ci suruk jël yenn décision yi mais nit ñi dañ lay ne eh président foo jëm wala premier ministre foo jëm wala ministre de l' élevage wala ministre de l' agriculture yow foo jëm taxawal affaire bi du nii et parce que justement Sénégal bëri na ay borom xam-xam te secteur boo jël yow ma nga jiite secteur ba sax di nga gis ku la ci ëpp xam-xam fuuf kon nag balaa ñuy yegg ci yenn yi nañu waxtaan. même bu waxtaan amul sax. Mhm. am na yoo xam ne euh, xel war na ko mën a nangu yenn yoo xam ne tamit xel waru ko mën a nangu yenn décision yi. nañ koy xalaat bu baax a baax avant ñu di ko jël mais ce qui important mooy comme dogu nañu ci ci ci ci ci ay concertation ci waxtaan mhm. euh, peut-être bu doon jamonoy beneen président surtout régime yi weesu euh, président day ne carrément je tends ma main à l'opposition noonu lañ ko doon waxee carrément mais fii concertation yi donc ça veut dire que limité rek ci classe politique bi limité wul ci syndicaliste yi mais dafa limité wu yaatu ba ba ba bépp sitoyen boo xam ne yaa ngi yeewoo ci biir dëkk bi yaa ngi nekk bitim réew te cosaanoo dëkk bi te doxalinu dëkk bi tam soxal la intéressé la waaw